Euh, bismillah mbokk yi ñu ngi leen di delloo di leen nuyu di ñaan boroom bi tabaraka wa mu defal ñu tawfiq te defal leen ko ngir yokk rekk li nga xamante ne moom laa doon wax ci rafetlu bidaa ci diine maanaam nit ki jëlug jaamu yàlla rafetlu ko te loola saxul ci diine wala na mu koy defee saxul ci diine mu di ko jaamoo yàlla euh, li nga xamante ne moo ci nekk ci lu juunu mooy lu jaarul yoon dafa bari ndax ki nga xamante ne moo rafet lu bidaa ci diine di ko jaamoo yàlla mu ne loolu de amul ci diine waaye euh, lu rafet la waaw moom ndax dafa jëfe mboolem jaamu yàlla yi nga xamante ne diine rafetlu na ko ba noppi ba sottal ca ba jeexal ko ne ah man kat li diine rafetlu woon lépp def naa ko te sama kàttan jeexagul sama mën-mën ba léegi mi ngi fi kon ngir ma mën a def leneen lu yees faw ma rafetlu ak jaamu yàlla goo xamante ne moom laay jaamoo yàlla te bokkul ak yi nga xamante ne moom la diine rafetlu ndax jaamu yàlla googu may rafetlu bu boobaa lu rafet lay doon donte diine indiwu ko ndax ki rafetlu bidaa dafa dem ba yegg fii ci wàllu jaamu yàlla nga xam ne mboolem jaamu yàlla gu diine digle woon def na ko nam ko war a defe fam ko war a defe bu dee lu ñuy dappetoo la dappetoo na ko ba pare dese nag waxtu wu doy woo xamante ne da cay mën a rafetlu ay jaamu yàlla yoo xam ne nag yu génn diine lay doon loola bu boobaa kenn du ko ko nangul lu tax ndax diine jooju mooy diine ji mat ji nit wara tënku di ci jaamoo yàlla borom bi tabaraka wa taala dana ni al ak akmaltu lakum diine ji mat na ah, am na lu rafetoon kët te newul ca diine ju mat ji yàlla wax ne mat na loola euh, nekkul loo xamante ne lu jaar yoon la ñaareel bi mooy waxuma la sax ki nga xamante ne mooy rafetlu bidaa def mboolem jaamu yàlla yi nga xamante ne moom la sharia rafetlu pour di desal waxtu pour def beneen bidaa boo xamante beneen mbir boo xamante ne moo koy rafetlul boppam di ko jaamoo yàlla waaye ñiy rafetlu bidaa xamal ne bidaa bu ñu rafetlu rey nañu sunna ca wet ga xam ngeen ni ñii nga xamante ne ñooy suul néew bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim jàngale ci ñaanal néew bu dogee buñ koy jullee buñ koy suul di ko dugal ci bàmmeel bi euh, wax bismillah wa ala millati rasulillah buñ ko robee ba noppi mu digle ne nañ ko ñaanal yàlla jéggal ko te saxal ko ak ñaanal yañ koy ñaanal gannaaw ga saa yu seen xel demee ci ñoom ñu ñaanal ko yàlla yërmande wala njéggal bu ñu suulee néew bi ba pare dañuy toog ñu naan def leen nangami yoon def leen bismillahi rahmaani rahim masalan nangami yoon jàng leen saar sàngam nangami yoon jamono booba ñuy def loola nga xamante ne dañ koo rafetlu te yonent bi daawu ko def ak i saabaam ñu rafetlu ko jàpp ne lu rafet la di ko def jamono booba ñu ngay rey sunna rey sunna si mooy lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon yamoon ca ñoom boobaa wan nañ ko gannaaw fekkee nañ ay rob ba tàyyi suñ xol jeex ñu ne ñun dey sunu néew yi way way ñi ngi leen di tooñ ci ne ñaan gi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ndigal ñu war leen koo defal fañ leen ko war a defalee leneen lañ fay def lu bokkul ak loola loolu rafet lu bidaa ci diine moo ko kon loola euh, mbir lay doon ki nga xamante ne mooy rafet lu bidaa loolu nga xamante ne moom lay lu lu mën a lu ci ak jaamu yàlla jaamu yàlla gu mel noona gu jub ci sharia goo xamante ne la nekk ci ndëngte ca jaamu yàlla ga muy def newul ca ga sharia joxe ndigal sharia saxal na ko bi maanaam képp koo xamante ne rafetlu na genn jaamu yàlla di ko def matalan bu fekkente ne ci buntu tudd yàlla la la nga fa nga toog di tudd yàlla bu dee da ngay coobarewu am na ay tudd yàlla yu sharia joxe ndigal yoo xam ne nit ki day coobarewu di ko def nga xam ne tënku ko ci place tënku ko ci ab lim tënku ko ci jamono tënku ko ci dara bu fekkente ne da nga koo tënk ci ab lim jaamu yàlla ga ngay def tënku ko ci lim boo xamante ne sharia tënku ko ca am na geneen jaamu yàlla gu sharia yoonal ca jamono booba nga koy defee sharia tënk ko ci ab lim te lim ba ko sharia tënk ca borom bi tabaraka wa taala la joge bu fekente ne nit muala la rafetalal ak jaamu yalla nga ne ki ah, kii de rafetlu na jaamu yalla yi mu tër rafetlu ko di ko jaamu yalla comme li nga xamantene ne am ku ne sos ab tariqa teur ci ay jaamu yalla. wo nit ña nit ña ne ah kii kat ku bax la kon nañ ko top ci tariqa yi nga xamantene ne la teur di ko yalla tariqa booba mu teur yonent bi sallallahu alaihi wa sallam teur na tariqa bu ko gën bal tariqa bi yonente bi sallallahu alayhi wa mooy bi nit ki war a tënku ngir mu yegg ci ngërëmal borom bi tabaraka wa kon soxlaatul nit di rafetlu ab tariqa di ko tër di ko jaamoo borom bi tabaraka wa taala ndax yonent bi moom tër na tariqa bi ba noppi te mooy yoon wii di yoonu lislaam mu mat sa sëkkit bu fekkente ne da ne ah waa ji ku baax la kon danaa ko topp danaa ko sopp danaa ko roy yonent bee ko gën moo gën a yey ngir ñu topp ko moo gën a yey ngir ñu roy ko te moom la ñu yàlla royloo kon loo rafet lu ci waa lu ko gën a rafet fuuf mi ngi ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam te waa muccul ci njuumte mën naa am daa juum te yonent bi moom yàlla musul na ko ci njuumte bu fekkente ne jaamu yàlla gi nit ki rafetlu mi ngi jëm ci wàllu julli julli ga julli te wuuteeg sharia moo ko rafetlul boppam sharia yoonal na julli goo xamante ne mooy wecc googa julli te yàlla joxe na ca ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ca ndigal te ga nga rafetlu sharia rafetlu ko joxe wu ca ndigal kon mbollem xetu jaamu yàlla gu nit rafetlu ci diine mbokk julit yi sharia fekk na mu teur lami teur lu sut jaamu yàlla ga nga xamantene mom mom la nit ki rafetlu diko jaamo borom bi tabaaraku taala te borom bi tabaraka wa taala joxe na ndigal ci ñu jëfe shari'a te jaamu yàlla joxe wu ci ndigal am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihi allah mo ñom ndax dañoo am ñu ñuy bokalé ak yàlla ño xamne dañ leen di teural ci diine ay yoon yu ñuy jaamoo yàlla te yàlla joxe wu ci ndigal mbokk julit yi laaya bi comme ni hadith yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon xamlee bidaa noonu la ko laaya bi xamlee am lahum shuraka shara'u lahum min ad-diin maanaam gaa ñi faaw ñu rafetlu dara di ko jaamoo yàlla rafetlu dara sos ko ci diine shara'u lahum min ad-diin loolu mooy man ahdatha fi amrina hada maa lam ya'dan bihi llah te loolee ñu sos rafetlu ko yoonal ko nit ña di leen ca topp yàlla joxewu ca ndigal lolou moy bida yiñ tuddé bida yu rafet yi gaay reud yépp rafet lu ko di jaamu yàlla te sharia joxewu ci ligal ñu tuddé ko bida bu rafet ñom lolou moy li yàlla wax ne am lahum shurakaau sharau lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi llah yonal nañ ci diine lo xamné ne yàlla joxewu ci ligal ci seenu rafetlu rek lañ ko tek kon lolou képp kuy rafetlu biddaa war nga ko bàyyi xel kon mbokki julit bi nga xamante ne yaa gëm yàlla xamal ne buntu tudd yàlla mooy bunt bi gën a yaatu bi nga xamante ne ci lañu indee li nga xam ne mooy bidaa bu rafet wutal ko ay lim wutal ko ay ngëneel et cetera waaw ana kan moo mën a tudd yàlla tudd yàlla yi sharia joxe ndigal yépp ci bis bi ba pare dese waxtu wu muy tuddee yàlla geneen tudd yàlla comme niñ ko waxee woon ci tàmbali gi loolu kenn mënu ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni nga xamantene moy sunu roy way mbok julit yi ci tuddu yalla way way soxna ma aisha moñu xamal ne كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه مانام سيتياسيون بو يونتبي صلى الله عليه وآله وسلم نيك دان تودو يالا واو لوتاخ كون اي نيت نيو تير اي تودو يالا يو ген يي يونتبي جانغالي وون rafet lu ko diko ko borom bi tabaraka wa taala ñaari mbir rek mo fi ne moy yonentu bi sallallahu alaihi wa sallam ma kana yadhkuru allah ala kulli ahyani moy dawul tuddu yàlla ci situation bu meuna nek ba ñom ñu jaglel seen bop ay situation yo xamne dañ ca fental seen bop ay tuddu yàlla rafet lu ko yu génn njangalem yonentu bi sallallahu alaihi wa sallam wala ñom ñoo gëna xam yonentu bi lu baax dàq ku ko def kon ki ngay roy ci tuddu yalla mu lay fental ay wérd yu mën don doon di ko jox nan defal bi suba defal ngon ngon defé ko ni defé ko ci lim bi té loola boko ko séndaloon ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam do gis bi dan na def wirdi yi ñuy def suba ak ngon guddé ak di diko tuddé yalla ñi koy def lu bax lañ bëgg waye lu bax loolu ñu bëgg té diko def ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ci deet ndax daan na ko def niñ koy defee ñoom ak lim ya ak sax léeg-léeg baat yu ñuy fental seen bopp wutal ko lim wutal ko ngëneel ndax loolu yonent bi salallahu alayhi wa sallam moo leen ca jiitoom déet bu dee moo leen ca jiitu ana firnde la bu dee jiitu wu leen ca ndax loolu lu baax la loo xam ne moom da koo raw yéen ngeen dabaatal ko mbokki jullit yi jullit bu gëm yàlla bu xalaatee lii war naa bàyyi xel digganteem ak boroomam waaye digganteem ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi may tëje mooy lu garaaw a garaaw ci saxal biddaa bu rafet mooy lan mooy ñiy saxal biddaa bu rafet boo settantelee seeni mbir biddaa yooyu ñu rafetlu saxal ko moo leen gënal fuuf moom lañ gën a fonk fuuf sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama la ciy jox rek benn misaal ñu baree baree wird yi nga xamante ne moom lañuy def ci tariqa yi nga xamante ne moom la ñuy askanoo bu mu mën a doon moo xam yi ne Sénégal la moo xam yi ne feneen nañ koy dappetoo di ko def nañ koy fonke bokkul ak niñ fonke adkaru sabah wal masa yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale loolu andi, ko indi mooy rafetlu bidaa lugi rafetlu gi rek yamul foofa waaye nga rafetlu ba pare ne li sharia rafetlu lii ma rafetlu fonk moom laay gën jox cër yamul foofu de ñi nga xamante ne ñoo ma ay tariqa tëral ma ay wird yoo xam ne moom seen wax moom lay jiital ci wax yàlla ak wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même buñ ko waxul loolu la ñuy jëfee ndax boo leen ne yàlla nee na wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ña leen tëral ay yoon ak ay méthode yu ñuy jaamu yàlla lañu wax loola la ñuy jël bàyyi wax yàlla ak wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wirdu yooya moom la ñuy jël di ko dappetoo wan gannaaw adkaar ak awraat yi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi doon ko dappetoo ba ni mu wuyjee boroomam lan moo xew mbokki jullit yi nañu ragal boroom bi tabaraka wa taala laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen royuwaay bu rafet lu mel nii nag saa yoo ko ñu ne ah waa ji kat dafa kontar mag ñi te yëgul ne waa ji tuddul mag waaye dafa leeral diiney borom bi tabaraka wa taala ji ñépp war a tënku ku wuuteeg moom kooka mooy ka nga xamante ne moom lañ war a wax ne ko waaw kooku moom lu tax mu wuuteeg diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji fi newoon ci masala sàngam ak sàngam bu ko defee ñu xam ne royuwaay ba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku wuuteeg moom ci masala sàngam mu mën a doon dañ lay won gannaaw ku dëppoog moom ci masala sàngam mum mën a doon dañuy ànd ak yow ci loolu bokk topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab julit nii la war a mel boo waxee loolu ñu daal di ne ah ñoom kët dañoo jàng rekk wet weddi mag ñi bu fekkente ne weddi mag ñi dafa dëppoo ak weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa weddi mag ñi baaxul waaye bu dee nit ki la mu weddee diw ak diw loola dafa nekk loo xam ne lu ñu war a weddi la ndax dafa wuuteeg diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa loola mooy la war a am loolu la yàllaa ko yonentam santaane ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp moom la yàlla garantil ni wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee rek da ngeen di gindeeku su ngeen ko toppee da ngeen di gindeeku garantie boobu moom rek moo ko am keneen ku dul moom nag say wax dañ koy séndal dañ koy màndaxe dañ koy dendaleeg waxi yàllaa ko yonantam bu dëppoog moom alhamdulilah ñu bokk topp yàllaa ko yonantam bu wuuteeg moom ñu ne ko ah yow kat loo baax baax ak noo mën a mel sa wax jii moom wuute naag waxu yàllaako ko yonantam dañ koy sànni te mooy ci wax yàlla akub yonantam jullit bu gëm yàlla nii lay taxawee ci wàllu diineem nit ku nekk war naa laaj boppam li may def suba ba ngoon ak li may bàyyi ndax mooy li diine ne naa ko def ak mooy li diine ne naa ko bàyyi ci wàllu jaamu yàlla nag laay wax bu dee noon la xamal ne yaa nga ca yoon wa bu dul noonu xamal tuubal te dellu te xamne wàcc nga yoon yàlla ñu borom bi tabaaraku taala defal tawfiq defal leen ko wallahu taala ala wa alam